dal leen ak jàmm amee site internet net bi tv li gën na fës ci bopp xabar yi nag dañ koy do rek yi nga xamante ne rek njiital Afrikajom Center daal dina koy yëkkati moom Alioune Tine di rafetlu décision bi nga xamante ne rek euh, conseil constitutionnel daal dina koy jël niki démb ci alxames ji ñeel nag annulé bi nga xamante ne rek daal dina koy annulé bu ñu dàqee woon élection présidentielle yi ginnaaw rek boobu lee mbir kii di Alioune Tine nag maa ngay sàkku ci président Macky Sall rek mu daal di ubbi lépp loo xamante ne rek volonté la ñeel wàllum politique mu fexe rek ba dalal bu baax tension yi nga xamante ne rek moom moo nekk ci wàllum justice ak ci politique ba noppi rek mën a may libération bu baax kii di ausman sunko ak Bassirou Diomaye Faye ba tey rek njiital Afrikajom Center Alioune Tine ne nag ma ngay rafetlu bu baax décision bu rafet bi nga xamante ne rek daal dinañ koy jël ci boobu boobule épreuve mu nekk nag mbir moo xamante ne rek dafa ñeel langum politique bi bi nga xamante ne rek jamono jii dafa daal di laaj ñu daal di respecté lépp loo xamante ne rek ab constitution la ci état de droit ak lii di démocratie waaye nag conseil constitutionnel ci jëmmi boppam na xam ne rek jamono ji li nga xamante ne nag moo gën a am solo ci réew mi rek mooy wàllum dignité ak fexe rek nu ñuy doxalee élection présidentielle yoo xamante ne rek yu jaar yoon lay doon bu boobaa nag mu mën a may possibilité acteurs yi nga xamante ne rek ñoom la daal di concerné ñu mën a fixé nag ab dat bu yees mu daal di ci yokk nag nee na nag mbir mënu mel bu ñu ko nammee amal rek nañ ko teg ci condition yoo xamante ne rek condition yu dal lay doon mbir mënu mel daal di xam Facebook am ba tax na nag ma ngay invité ci képp koo xamante ne acteur nga rek nga daal di def loo xamante ne rek preuve bi waaye na rek lii lu dëggu la ci yow nga jël sa responsabilité bu boobaa rek ñu mën a jeexal processus électoral bi ci jàmm ak salaam waaye continuer nag di libéré képp koo xamante ne rek ab détenu politique nga te ñu ngi la làqoon bi ne ne nag ma ngay encouragé waat bu baax kii di Macky Sall ci anam bi xamante ne rek mu ngi koy def ngir nak langum politique bi mën a amaat jàmmam waaye nag fexe rek ba kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay daal di am seen liberté PRD mën na fexe nag topp lépp loo xamante ne rek day rafetal politique bu Sénégal ak lépp loo xamante ne rek askanu Sénégal ñu ngi koy xaat mbir mu nu mel nag dinañ ci dem ba climat jàmm bi nga xamante ne rek moom lañ daal di bëgg ci jongante présidentielle yi nag mu daal di am mbir mu nu mel mi ko daal di détaillé ba tey rek kii di Alioune Tine nag nee na Sénégalais ci seen jëmmi bopp dañoo bëgg jàmm bëgg dal ci biir réew mi bëgg élection yoo xamante ne rek yu baax lay doon yu jaar yoon yoo xamante ne dinañ ci mën a feete lii di démocratie nee na nag suñu réew daal ba léegi gi rek daal dinay wanewaat boppam alhamdulilah di kat yu nga xamante ne kii di Alioune Tine daal dina koy yëkkati jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abone bës cloche notification ngir amaat yeneen info